asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen indil tey benn secret bu am solo lool bi jëm si wàllu diggante yi tey mooy suñ juróomeelu numéro boo xam ne danañ koy indil lépp rek pour gën a dëgëral diggante yi moo xam ñuy sëy moo xam ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a sëy comme ni ma koy faral di waxee toujours rek ndaxte parfois sëy bu amee tuuti tuuti tuuti yàqu-yàqu rek day dem ba si day yaatu daal day laal xale yi laal mbokk yi ñaar ñi bëggante itam bëgg a sëy parfois du sotti te wax dëgg neex yàlla sëy moom moom mooy li li gën moo tax ñuy góor góorgóorlu di leen dimbale di leen jox yi euh, ginnaaw loolu itam yàlla mooy dogal ñun dañuy joxe waaye yàlla mooy dogal kon na yal na yàlla nangu lépp yaakaar bi ngeen am ba di ma topp chaque jour ma leen jox ay secret lépp lu ngeen si yaakaar di ko def si lu neex yàlla rek na yàlla faj ajo yëpp si zaahir rek si baatin incha allah kon tey secret bi mu leen fas yéene jox mooy secret boo xam ne xeer ngeen ut xeer ak waaw maanaam xeer ngay ut boo tey xeer waaye balaa ma dugg si loolu sax xam nga dafa am ay genre secret yoo xam ne duma mën a kii lépp lépp ba kii parce que dafa nekk ba bal buy tàkk boo ko xasee ba def rek jeex na te parfois da ngay gis euh, nit jël ko def ko doomi jàmbur. yaa ngi dégg di ko fooye wala nit def ko sax jabaru jàmbur ndax am na ñu sañ loolu ndaxte man chaque jour lu ne laay dégg message façon message bu ne danaa ko jot dégg ko ay jigéen yoo xam ne ñoo may waxal seen bopp wala nga def ko jëkkëru jàmbur wala nga def ko koo xamante ni sax moom yoonam nekku si nga dem def ko dara yàq àddinaam wala euh, vraiment def ay bàkkaat loolu taxumaa jug li ma bëgg mooy lu rafet lu baax moo tax naa leen jox secret bu simple bi nga xam ne nag naa leen ko jox ñi ma koy defal comme nit woo ma envoyé message whatsapp wala mu yónnee moom wala mu wala mu wala mu yónnee ma message vocal si whatsapp bi wala mu woo ma téléphone su ko defee si boobaa danaa xam naka laay dimbalante ak kooku mais nag du nekk nag ku ne laa koy defal dama wax leer loolu dafa am ay alxuraan bi muy àndal mais bii ma leen jox du ànd ay alxuraan mais boobu dama koy bàyyi noonu pour ay cas exceptionnel yi nga xamante ni mënta ñàkk ma dimbali leen ci loolu waaw kon nag euh, bii li ngeen li ngeen ut ma da nga du benn xeer xeer bi boo ko jëlee. bala nga tedd nga nga utiliser bala nga tedd da nga jël xeer bi nga jang ci turu nit ki nga turu nit nga ci wax lu tolok ñett yoon wala juróom ñaar yoon ñett tool na juróom-ñaar tool na yow ya xol da nga téye xeer bi ni xeer rek xeer bu mën ti doon baax na na nekk xeer daal nga jël xeer bi jang ci turu nit ki maanaam da nga koy oo diw diw diw nga def ko ñetti yoon wala nga def ko juróom-ñaari yoon wax sa bëgg-bëgg ci mom nga jël lool ëf ko nga ëf ko ci xeer bi def ko si suufu njegenaay comme njegenaay yi nga def ko si suufam tedd ci ba suba noonu ngay def bu subaa boo xëyee ne jëlay xeer boobu nga ut foo ko denc la nekk ut ko denc bu nga continuer di ko def xeer boobu moom du ma sa du du ma sa du ma sa du ma sa yàqu xeer boobu doo ko def di ko def di ko def di ko def ba gis si résultat ndax lii sa secret bu am solo la waxuma laa nag nga nar see boole ay alxuraan bi kon day gën a yéeme kon def leen ko kon ni ma ko waxee nga def ko si lu neex yàlla képp koo xamante ni soxla nga ko si lu. nga nekk si diggante boo xam si ni ñagas na wala xaw na doy waar moo xam sa jëkkër sa jabar moo xam diggante wu mënti doon te vraiment xam nga ne euh, fu mu la jëmee bëggoo ko te te lu rafet nga si bëgg ànd bu neex nga si bëgg mën nga ma contacter sama numéro whatsapp bi bu ngeen moo jotu nag ngir yàlla ngeen bàyyi message vocal whatsapp tôt ou tard naa tontu comme li ma leen wax du ma sëriñ parfois damay ne sama yeneen liggéey bopp waaye tôt ou tard dinaa leen tontu kon ñu ngi yem fii di leen jox di daje bu suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu